salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di nuyu man Mor di leen bàyyiloo xel benn mbir di leen wax déglu leen lii ma leen di bëgg a ngeen déglu ndax lii kilifa dina wax lii. am rek moom laa wax doome xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom. seetal ma lii seetal ma lii en tant président vice. gis président assemblée nationale kii di wax ni tey est-ce que xam na li mu doon kii di wax li est-ce que xam na li mu doon est-ce que xam na mooy kan ñun joxuñu ko kër ñun réew lañ ko joxu na xam li mu doon na respecté sénégalais yi na respecté sénégalais yi lii rafetul ci gis-gis rafetul ci dégg-dégg. te tey képp ku ko defoon président de la république monsieur Macky Sall maa ngi koy nuyu de passage di ko jox cër bi ko yàlla jox képp ku ko waxoon tey jii nii fanaan ni rëbës mais tey lii nii nekk na li nga xam ne man man moo en ak que sénégalais géré naa ko géré muñ naa muñ munuma muñ li ma wax loo sax xamuma ko mais dama di doomu Sénégal dëkk Sénégal gëm sama réew Sénégal bi ñaan jàmm ci Sénégal tey ñu dégg lii. ci président euh, vice président assemblée nationale Moustapha Cissé Lo bàyyil xel sénégalais yi bàyyil xel sénégalais yi bàyyil xel yàlla lii ngay wax ni tegewul fenn tegewul ci xam-xam te yor nga njaboot yor nga njaboot doon kilifa yàlla dénk la benn poste ci réewum Sénégal maa ngi jéggalu nag ci kàddu yi waxewu ma ko dara waxewu ma ko loolu mais dama koy wax en tant que citoyen il faut ñuy teg affaire euh, démocratie si suñu réew. ñun dañoo soxla Sénégalu jàmm dañoo soxla Sénégalu salaam maa ngi souhaité nag ñépp jàmm Sénégal élection yi yal na ci yàlla def jàmm yàlla suy ci ndox mu sedd guy ba ki nga xamante ni si la yàlla nama jox réewum Sénégal mu jiite ko mu ko si jàmm ak i salaam ñoo ngi jéggalu bu baax a baax a baax ci kàddu yi ngeen déglu dernière waa kàddu gi après wa salaam jërë ngeen. ko amul éga nekk riba. xool leen yàq der kañ la commencé. kañ la commencé. mu ngi commencé depuis l' de Macky Sall au pouvoir. parce que dafa armé mu ngi dénoncé lu ñaaw li ma nekk di def taxaw leen ngeen sosal ko waxal ko wax ci bon dem leen uti sax ay ay yëfu dof ne moom moo ko def. ndax Sénégal am démocratie ngeen laaj ko xaalis bi mu yor fu mu ko jëlee. ana yàlla suñu ngi jégg